mahad hikmatul yawmi li tarbiya al islamiyya wa taalim institut hikmatul yawmi pour l' éducation et l' enseignement islamique muy daaray internat yi waa daara ji taxawal ngir di ci jàngale ak di ci yare ñoo leen di may xikma bi daara yi ñu ngi Touba ak Thiès ku ci bëgg leeral ngir bëgg fee indi sa tànk nga woote ci 77 633 77 56 tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo te mooy wéyale leenu tàmbali woon yenn fan yi ci bayit wi di tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati te fan yi ñu nekkoon ci baatu mahabba mooy cofeel ndax cofeel mooy buum gu dëgër gu am solo gi lëkkale diggante jaam bi ak sun borom tabaaraka wa taala mooy lëkkale diggante jullit bi ak yonent bi sallallahu alayhi wa waaye mooy lëkkale diggante taalibe bi ak sëriñam bi nga xam ne ni mooy wasilaam ñu andi woon ci démb lenn ci misaal yi ñuy jël ci taalibe yi niñ bëggee woon sëriñ Touba gannaaw buñ jiitalee nag sëriñ Touba lenn ci ni mu bëggee woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bëgg mbir la mu ama am njariñ te ki ñuy bëgg itam moom ci boppam day yëg ne bëgg ko am na njariñ ni ma waxee na noonu la euh, suñ borom tabaaraka wa taala waxoon ne nel jullit ñi bu ñu bëggee nañ la topp yow yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam it nëbbut nga ne li yàlla def ci moom tax na mu wax ne yàlla du nangu gëmu kenn ci yéen dul dama ko gënal boppam ak njabootam ak mboolem nit ñi waaye Sëriñ Tuubaa sunu yaakaar waxiin woow wi wax na ko waxu ko ngir damu waaye day bañ a nëpp nëppal wala muy bañ a nëbbu ngëneel li yàlla def ci moom ci ku ko bëgg ni nga ciy jariñoo waaye itam bu ngeen gisee yenn bayit yi nga xam daf ciy xuppee mais na ñuy xupp ñi ko jubluwut daf leen a bañal lor moo tax amul sañ-sañu nëbbu boppam faaw mu wax euh, li tax a jariñ ci moom waaye faaw mu aartu li nga xam ne nii euh, ku ci àgg mën ngaa lor sa bopp moo tax bayit yu bari bu ngeen ko déggee muy wax muy tëkku ñi ko sopput xulubu man la mu lam yuhibbuni ala wajalin wala yulaaxuuna maaraamu walal baaba xol bu ñi ma bëggut kat ci njàqare la ñuy dëkk te seeni buntu ubbeeku wa man xalaw ni fil unaasi usula ñi ma bañ ci nit ñi de torox nañ yaa rabbana ajjil uqubatan liman xasadani yàlla na nga gaawee mbugal ñi ma iñaani ak ñi ma bañ xeet yooyu bari na fu ko wax lu mel ni shaqaa man lam xat qad kutiba fii lawhi lasi yufiidul kutuba texee di ki ma bañ bind nañ ko ca lawhul mahfuus te kan dootu ko far yooyu yëpp wax na ci ay bayit yu bare bare bare waaye itam gis nga euh, li tax nga xam ne da ci tëkkoo ngir bañ ku gaañu euh, day ñaanal sax ki nga xam ne da koy ŋàññi walla nga xam ne nii da koo bañ da koo ñaanal suñu borom defal ko tawféex mu wëlbati ko ci loola bokk ci ñu koy sopp ndax mu jariñu wa kullu man chatamani aw laama fa hablahu tawfiixa wastislaama di ñaan suñu borom ne ko nag képp ku ñaaw njort ci man yàlla na nga wëlbati ab xolam ba mu rafet ci man njort ba mën a jariñu fa kullu man asa wannahu biya faliya xallib xalbahu yaa rabbi ya ñàkk nabu gi muy ñàkk nabu boppam nag ci bëgg ñu sopp ko ndax ñu jariñu ak bañ ku ko soppadi bay loru tax na mu leeral ne suñu borom nag moo ma digal lii may wax yépp bu ngeen gisee may waxee nii yàlla ma ko digal dafa bind ne amarani rabbi bi an usarriha bi annani malaasun wa himan wa mafza wa man araada al xayra fii kiiltayit daare ne fal yelsu fal yelus bi suñ borom digal na ma ma leeral ne mankat kat ab wéeruwaay laa ab làqukaay laa te ab muccukaay laa te it képp ku bagg yiwu àdduna ak àllaaxira itam na ngooy ci man daal di waxaat ne bu nit ñi xamoon li fi man ñoom ñëpp danañ xir ci sàkku si ko waaye nag bañ ko réeree tax na ñuy sàkk lu leen amulul jariñ law alima annaasu maa huna la baadaro ila talabi walakin lamma jahiluhu talabo xayru kon nag ñun ñi nga xam ne ni suñu borom defal nañu tawféex ñu sopp ko nañu xam ne suñu borom tabaaraka wa taala moo ñu ko tawféexale ñu sant ko bu baax a baax a baax a baax te xam ne du sunu ngóoro te ñi nga xam ne ni itam dañoo mel ni lu jublu leneen ñu ñaanal leen tawféex ne leen ko sëñ Tuubaa ñaanalee te bàyyi xuloo bi ah ñi ko sopp am nañ tawféex ndax Sëñ Tuubaa kat nee na man njëriñ yëpp suñu borom dalee na dàq mu wut si ma te àndut rek benn ndax-ndax mag ci àdduna ak àllaaxira kon Sëñ Tuubaa boo ko déggee mooy lanc boo amul kuruj dañuy wax ne suñu borom ku mu lancal dana dana ci def kuruj boola wanne wala boole yàbbi waaye Sëñ Tuubaa moom lanc boo amul kuruj la te da ko bindal boppam dafa wax ne li tax nit ñi topp yàlla kat ma dimbale ci géej gi jéeri ji ma leen di jariñ rek te duma leen lor wallaahu yansuru nii wal xalqu tatbaxuni fil barri wal baxri daa nafin bila doror li ma wax ne lañ ci bu amul kuréel kuréel laat moo ko wax liyal manaafiu bila ak daari fii daarati am nan wa tilka daari loolu la wax waliye bir rahmaani xat jalabta nafan bila dorrin waliye xalabta dellu waxaat ne bakkan yi aju ci man yëpp texe nañ àdduna ak alaaxir lool nag ngëneelul yàlla la lu ma defal defal leen ko yéen it nu nufuusa man taalluqu biya dunya wa dellu ñaanal ñi ko sopp naan képp ku ma sopp suñu borom na nga ko wërsëgalee ak njub ak alal ak lépp lu mu soxla wa kullu man ahabbani aw maala ilayya farsuqu hudan wa maala waaye nee na ëllëg sax ñi ko sopp seeni kanam day weex tàll nii kanam yi e, shuhadaa yi weexee wacul la si yuhibbu nii yab yaddu yawma wujuhi shuhada tab yaddu kon li mu wax ci ñi ko ku ko sopp bari na lool ci ay ngëneel ak tawfiix kon yàlla na nu suñu borom tabaaraka wa